Omar Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Kumba Moreau. Omar Cissé nga nekk directeur exécutif bu association des commerçants et industriels du Sénégal déjà ñu wax ci euh, jafe-jafe yi nga xamante ni yéen commerçant yi yéen a ngi koy jànkonteel euh, surtout ci jamono ji nga xam ni Sénégal dafa dafa nekk ci période d'insécurité suñ ko mënee waxee. effectivement euh, ni nga ko waxee noonu la demee ay jafe-jafe yoo xam ne industriel yeeg boo fàttalikoo toog nañ fi lu mat euh, ñeenti fan du premier au cinq xam ne kër liggéey te waxuma la benn jour mais benn heure bu commerçant wala industriel liggéey dafay compte lu bëree bëri bëri ci liggéey bi parce que xam nga dañuy liggéey ay fournisseurs yoo xam ne ñu ngi à nekk nekk ay euh, partenaires financier di ay banque ak ay voilà établissement financier yow chaque jour bu jot rek dafa am échange bu lay xaar boo liggéeyul rek forcément day ci sa sa kon loolu jafe-jafe la. Euh, waaye beneen jafe-jafe bi mooy dajji magasin yi say bagage sa xaalis àgg sax bi tey est-ce que xam nga ne madame Moreau ñu. au niveau de l'ACIS ay xam ne HLM lañu dañu dalee membre de a reçu boo xam ne benn bal la dal benn bal réel la jot faatu. Mhm. kon jafe-jafe yi maanaam kenn waxatu ko maanaam jéggi na dayoo ci it nag euh, doy waar la ndax lii nag mën naa ba ci ndërmel am économie hmm. te nag bu fekkee lii saafara wuñ ko xam nga du ma ko tuddee sax banque say loxo mais da nga doon am possibilité liggéey hmm. waaye ngay loxo parce que doo jël risque dem ñu lay rey wala ñu lay rayat ndax rayoon nañ ci doo jël risque dem ñuy daaji maga magasin am na ci benn suñ benn membre boo xam ne magasin bi ñu ko daaji soixante millions lañ ko yóbbul hmm. donc euh, boo xoolee yooyu yëpp Eh, ay jafe-jafe la jafe-jafe yi nag li wolof di wax ba ay du yem ci bopp borom bu ñu ba ci mënatuñu liggéey dañuy toog di xool toog te économie bu ñu toogee soixante douze heures doxul mais xam nga loolu lim nar a jur ci am réew moo tax euh, kenn amu ci intérêt du commerçant bi du population bi du ñi jiite du opposition du kenn ku ci am intérêt li ñu am intérêt ñun ñëpp mooy que la paix revienne ñoom ñu nekk ci jàmm. te teg ko ci dëgg nag loolu moom mooy li nga xam ne daal. Hmm. jafe-jafe la bu ñuy dund. boo xam ne kon daal insécurité bi yéen daf leen euh, laal bu baax a baax yéen. mais daf ñu laal bu baax a baax te kat euh, lu ma waxul ci tubaab euh, madame moro mooy tey boo demee ci marché yi gën a mag Sénégal jëlal Sandaga jëlal Tilène jëlal HLM jëlal marché Zinc. bu la neexee nga def sa micro wala nga yor sa caméra nga dugg ci marché bi nga xool. Hmm. doo ci fekk le plus mo le moindre policier wala gendarme bu taxaw di def la sécurité. par contre boo demee ci magasin yi ñuy wax les magasins i hmm. wala nga fekk fa ñetti camion yoo xam ne ay force takk-der la fees dell comme si ñun dañoo nekk ay étranger quoi bon dañ koy wax ne ma xel ne yéen menaces yooyu am yéen am leen ko attendez Mm-hmm. mais menace bi pourquoi parce que ñoom dañuy dañuy dañuy lu nekk seen kanam rek xëy na lu nekk seen kanam rek ñu jël ko parce que xam ci biir manifestation am na ñoo xam ne li Europe di wax ñi gàmbaang ñi euh, boobu moom wax dëgg yàlla euh, yàgg na ñun nag jot nañ ci def ay jeexoo dem ci vraiment ñi yor wàll wi wax leen na leen boobu sax lii daa xewul Mm-hmm. booba lii xewul parce que ay digg bëccëg dañu doon braqué amoon na ci benn cas bu amoon Touba. amoon na ci ay cas amoon Mbour digg bëccëg ñu braqué arme à feu ñu doon gis les responsables de la sécurité de notre pays mais ba léegi fu may xëy jéego amu ci lii nag dooleeku ci lii nag bi ci dooleekoo li ñu gis daal mooy kumba day koo amul day ñun daal ñun kenn sécuriser wuñu moo tax nag ñun euh, dañuy woowaat état bi ci sécurité bi. Mm-hmm. surtout marché yu mel nii marché yu mag yooyu Sandaga Tilène Aslem ak bépp rek boo xam ne ay sénégalais nga fa di liggéey ndax yaa ngi wax problème yi nga xam ne moo am ci approvisionnement bi maanaam ci li ñuy euh, séddalee daara yi mm. lu ko waral mooy def nañ ba tey euh, li ñu commande ci bagage mu ñëw commandatuñ ko kon loolu ndax doo wóolu. Mm. looloo waral si période tabaski bi denrée yu bëri amul. wala cher bu cher bu jéggi dayoo. waaw li ko waral mooy amul parce que tout simplement doo ñemee stocké transaction yi nga doon def doo ko mën a def waaye ñaareel ba mooy su demee ba manqué euh, loi marché moom xam nga bagage moom su fekkee li ko soxla mu ëpp li ko li fi am fu mu jaar rek day cher donc loolu mooy wax waaye ñun dañoo baaxoo woon bu euh, événement war a jublu si deux mois avant nga préparer ko def say commande mu mën a yegg si à temps mhm. nga mën koo livrer. ñëpp seen bagage yi ñëwandoor bagage marché bi inondé ak ma ak bagage bagage yi du cher dana disponible te waaye bi yoon am na fi jamono boo xam ne nii bagage yi mi ngi noonu am na bato yoo xam ne dañuy ñëw taxaw costé duñ mën a wàcce parce que por liggéeyut bato yooyu yëpp tardé tey ci yi la rek jox nañu benn liste bu mag boo xam ne pour réclamer ay ba produit yoo xam ne produit événement la tabaski la mais kon kon ne retardé ñëwul parce que ñu ngi leen gaare fi Maroc parce que wóoluwuñ léegi-léegi ñëw ba yegg si duñ mën a wàcc ñu delluwaat donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne bokk na ci li tax bagage yi tey manqué waaw waaye ñun li ñu waroon def def nañ ko mooy teeloon nañu def suñu commande def teeloon nañu def suñu commande mais su ñëwee amul fu mu wàcc wala góorlu na yegg si mën problème la su ñëwee su wàccee yow wuloo ko jël yóbbu ko fi ngay jaayee parce que yaa ngi ragal yàqu problème la lu muy jur mooy manque ma ay manque mooy ay ay manque lay def su manqué nag la ciy toppale mooy cher. Euh, kon euh, euh, aussi si tënk soble si tamit Omar Cissé jafe na wala ba léegi explication boobu la. waaw soble bi waaw soble bi. effectivement effectivement parce que fan yi la rek benn euh, membre woo na ma di wax ne soble bi fii ci Kaffrine rek mu ngi jar treize mille deux cent cinquante su ma su ma mënu saak bi quinze mille ci loo xam ne ay dix mille cinq cent onze mille euh, la doon jar waaw li ko waral mooy da ngay gis ni comme ni ma la wax rek approvisionnement bi day day day day poser problème euh, waaye disponibilité bi ci boppam day poser problème day poser problème su ko defee importation bi lu ci aju rek. jëm ci événement mel soble pomme de terre loolu lay jur ndax daana la yoo xam ne euh, bu fekkee ni mu war a wàccee wàccee rek dafay gaaw a jeex ndax ñu koy soxla dafa bari nit bu xëy suba ba ngoon ñëw di jënd soble wala pomme de terre kon li ma la wax sànq moom mooy les deux mooy tax léeg-léeg euh, yomb moo tax bu ñu bëggee daal yëpp ñëw à normal dañ fexe ba sécurité bi ñëwaat. ñëwaat nit ñi am kóolute mën def seen commande mën a ubbi seen i magasin eh, te mën a def distribution bi mu baax a baax dem na ba ci oto yi ci boppam pour léegi nga am sax oto yu ko transporter léegi-léegi ak risque lay doon da ngay woo nit ca ku la daan indi nga ne ko mu ne la est-ce na est-ce que su ma sama oto dañ ko yàq xaaral ma taaxir lu tuuti loolu ay mbir la yoo xam ne duñ ci bàyyi xel te defa bokk ci li nga xam ne ci chaîne de distribution bi bu mankee rek day am problème hmm. donc yooyu yëpp faut ñu tenir ko en compte pour euh, mën a xam ne lool la waaye léeg-léeg dañuy jog rek commerçant yi ñoo ko denc ñoo ko yokku dañuy profiter ci ay situation alors que c'est archivé demeewul noonu parce que ni mu léegi ni mu kenn kuy denc marché ni lu ne dana des sa loxo yi parce que tout le monde fait du commerce est-ce que sax yow defoo commerce euh, madame la <laughs> journaliste keneen noonu keneen noon keneen noonu. dëgg la finalement concurrence bi métti métti xam ne téye fi marché wala di ko seeral boo ko defee loolu moo lay jàpp yow. dañ ci gis koo xam ne mi nga am marchandise ci place am pendant des mois ko jaay nga naan kooku daf ko denc yow day da lay jàpp kon lii mooy cause yi voilà. voilà euh, Omar Cissé aussi mais dañu dañu dañu seetlu avant manifestation au mois de juin yi terewul tamit état bi jëloon na ay mesures. mais mesures yooyu jël na ko mais terewul marché bi prix yi dañuy grimper di di yokk saa su ne boobu sax manifestation mois de juin yi amagul. loolu tamit ñu koy expliquer dëgg la madame loolu am na effectivement. jëloon na fi ay mesures wax na ay prix nañ ko jaayee ñu gisoon ne loolu mun toon nekk li ko waraloon mooy bi muy jël prix yi bi muy jël mesures yooyu li waroon na jiitu jiituwul woon. ndax boo fàttalikoo loolu dañoo jóge woon ci ay li ñu tuddee ay ay concertation ñu jóg rek xëy rek au lieu ñu def li ñu waroon def yëpp ba mu mat ñu génne ay prix te prix yooyu ñu génne woon prix yi ngay jëndee ci bitim réew boo fayee ba mu yegg moo ëpp yow jaayee goore prix bi mu la ñëw moo ëpp prix bi wax na na la ko état jaayee bi la état wax na nañ ko jaayee loolu moo woon na a wax nañ jaayee dix mille cinq wala onze mille maximum yëf yi ñëw la dix mille cinq cent wala mu ñëw la onze mille mais mënoo ko jaay lii moo taxoon ñenn ñi téye seen loxo ñenn ñi jël seen marchandise téye ko mënuñ ko jaay ko jaay donc du woon bañ mais dafa fekkoon ne liñ ko jëndee ñu moo ëpp ñoom li ñu wax nañu ko jaayee lan moo ci mujj état bi ñu dee ay gëstoom gannaaw bu ñu dajawaatee wan ko euh, les prix wax ko les factures à l'import wax ko les frais mu calculer gis ne effectivement prix bi mu tëral moo gën yomb ñun prix yi ñu jëndee ci la réajusté waat ci la defaraat prix ne kon jaayee leen ko ni teg ci beneen marge de cinq cent francs kon loolu leeroon na ci askan yëpp en tout cas ci ñi ko bëgg xam kenn du woon ci seen du woon ci commerçant yi kon li ma la wax ñëw na léegi-léegi ñu bëgg wax commerçant yi la defee fekk wax dëgg yàlla xam nañ ne li ñuy wax ni ñun xam nañ ne demeewul noonu te boo laaj le ministère du commerce dina la ko wax donc boobu kon loolu moo doon cause bi maanaam daal ci tënk tëraloon nañu prix yoo xam ne ñun li ñu jëndee moo ko a cher gannaaw bañ defee ñoom seen i gëstu waar ñu ñu joxeen facture yi xam nañ ne lañ leen wax moo dëgg ñu mujj ko changé loolu yaakaar naa fàttewu leen mhm. d'accord euh, depuis une quinzaine de jours presque quinze jours euh, bateau Aline Sitoé Diatta dafa dakkal ay liaison euh, Dakar euh, Ziguinchor Dakar euh, même sax Sénégal Dem Dikk ki aussi dafa arrêté liaison yi est-ce que lu ni mel am na impact si seen liggéey yéen commerçant yi mais bien sûr xam nga bato a Sitoé Diatta Dakar Dem Dikk ak yeneen moyens de transport yëpp li ñu dugal ci marchandise ci fële dafa bari rawatina bateau bi fii ñun da ngay jaay lu bare bari ñu ne ko bateau kon bu fekkee taxaw amul si ci ne distribution la la am sooxe moo ko waral yeneen di ci képp ko loolu da koy laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dogal voilà li mu wax mooy yu mel dañuy jàpp ne waxtaanee ko dina baax ndax su fekkoon biñ ko nawee mois avant ou mois avant dañuy woon nañu ah dañoo jël bëgg a jël décision lay arrêté bateau bi Dakar Dem Dikk dañ ko jël décision arrêté ko waaye comme fii ak sud bi dafa sori te it mënuñoo ñàkk am bagage yu fa dem dañoo buggoon ngeen organiser wu teel a yóbbu seen i bagage balaa muy arrêté konoon danañ doon mën a def ay pexe ba nga xam ne xaj na ni muy métier du ko ni muy métier du ko métier xaj na lépp nga def ko à cent pour cent de yomb waaye konoon dinañ mën a organiser ba nga xam ne dinañ mën a yóbbu le maximum ci bateau bi mu dem li ci des camions yu mag yi yeggali ko su ko defee xaj na distribution du am problème foofu au niveau du sud moo tax am réew niñ ko yoree dañ koy waxtaanee euh, lu ñëpp bokk ñu ko war bokk waxtaanee konoon daal xam naa ne solution dana am waaye nag comme yow kom man ak keneen dañoo xëy xëy rek. yëg ne arrêté nañ en tout cas ñun nga xam ne ñoo féetee ci côté Aziz bu amee man yëguma ko waaye jàpp naa ne daal mu ngi noonu euh, fi may wax yow ni oto bii di romb ni macha allah soble la yeb ba fees mi ngi dem euh, maa ngi nii ci région Kaffrine euh, waaye xam naa ne lii tekkiwul dara ci marché ba bu wàccee yaakaar naa ne du def trente minutes mu jeex te xam nga ne ko tabaski bi des na kon euh, transport ci wàllu marchandise du caaxaan mbir mi benn chaine la boo xam ne bu ci benn moyen amee benn jafe-jafe rek chaîne bi yëpp yëpp hmm. moo tax daal jàpp nañ ne di waxtaan bi concerté wu balaa ñu jël yenn décision yi ñun ñu jël liñ ci mën ci ay matuwaay boo xaj na euh, du am impact trop loolu moo gënoon waaye malheureusement euh, loolu lañ dogal kon nag lu ñëw rek ñu xam ne loolu la ah su manqué nag marchandise bi su manqué nañ xam ne moom li loi marché wax rek su euh, bëgg-bëgg yi ëppee marchandise bi jaar rek lii yomb moo loolu moom loolu mooy suñu taxawaay ñoo ñu ne la ci keppee merci beaucoup Omar Cissé maa ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi. jërëjëf jërëjëf man maa lay sant di la gërëm. di jégalu nag ci français bool bool yi nga xam ne moom <laughs> mooy loolu. Ah, comprendre nañ ko en tout cas maa ngi fàttali ni Omar sa yow yaay euh, directeur exécutif bu ACIS l'association des commerçants industriels du Sénégal jërëjëf merci beaucoup Omar. beaucoup.